ñëw ci ñaari fànn mm. euh, fànn bu njëkk bi mooy que ne dañ fi ñëwoon massawu coono euh, ñi dëkk Touba massawu coono xalif bi massawu coono njaboot yëpp ndaxte xam nañ ne Touba mu dund jamono yi ay ay moment yu yu yu euh, ñaari li aspect bi mooy comme ñun la yàlla dënk mbir moomu Sénégal en tout cas assainissement ñun la ku ci liggéey rek ñun ngay jàppale am na ñeneen ñu fi liggéey à mais ñun dañ ñëwoon pour xool suñu dispositif bi parce que def nañ fi dispositif bu am solo boo xamante ne mooy yóbbu ndox mi waaye lenn la nga def fi dispositif mais aussi autre chose aussi nga vérifier ndax dispositif boobu efficace na efficient na parce que mun nga fi def ay pompes yu mag mais li mu waroon pompe yóbbu ko mu bañ ko pompe parce que am na ay problème ba fi ñu nekk nii je pense que réaction yi ñu def yëpp réaction tembe tembe la mais am na loo xam ne dafay laaj tuuti temps yaakaar naa ne jot nañ ci def ay jéego yoo xamante ne am am nañ yaakaar bu baax ne ci at yi ñëw incha allah problème bi dinañ ko dina doon lu dina doon lu féete lu féete ci ginnaaw pour ñun ndaxte lu ñu war a xalaat la te xam-xam yu bëri dañu war a dajaloo ci mbir moomu euh, ñu ngi ci kawam euh, incha allah fi leeg fi jamono ju du dul bu dul parce que mënuñ wax exactement une date précise mais xam nañ ne li ci des yàggatul xëy na at bii ñëw sax war nañ mun a pare lépp mais loo gis itam parce que loolu noonu loolu noonu dem dina laaj alal bu bëree bëri bëri bëri il ñu qu'on soit clair dina laaj alal bu bëri bëri te du doon loo xam ne mën nga ko xëy na tabax ci at loo xam ne da nga koy étaler ci deux ans trois ans pour vraiment jël en charge tout toute la problématique des inondations de Touba donc loolu ñu ngi ci kawam en tout cas di dalal xel waa yi mm. parce que autorité yëpp am concentré wu nañ ci autorité yëpp seen ñàkk nelaw fu ne nii mooy Touba. kon nag na xeluwaat Touba yëpp dal te xam ne nelawatuñu defatuñ leneen lu dul wut solution boobu te incha allah gëm nañ ne solution boobu na tax.